ci maanaam ku bëgg ñëw ku bëggul ku gedd sa yaay ay euh, c'est-à-dire loolu loolu bala may ñëw ci euh, dialogue bi en tant que tel euh, ñu ñu faram-fàcce ko dama bëgg ñu ñëw ci ni nga xam ne noonu la abordé tàllal loxo bi quoi ni mu ko waxee waa man tàllal loxo bi wax dëgg yàlla gisuma ci dara loo xam ne lu ñu war a ñaawlu au hmm. contraire dañ ko war a rafetlu te nag askan bi ñuy seetaan ñoom ñëpp loolu ñu rafetlu hmm. dialogue bi nga xam ne njiitum réew woote na ko tàllal loxo ñi nga xam ne ñooy toutes les forces vives de la nation. rawatina ñi nga xam ne ñu nekk si kujje gi xam nga ne waxtaan nag ñaar ñoo koy séq. yaakaar naa ne waxtaan nag ki bëgg waxtaan ak yow. ndax ba waxtaanee koo xam ne bëgg waxtaan ak yow waxtaan boobu non seulement mën na bañ a am mais mën na bañ a jur njëriñ pour askanu Sénégal. te la soxal président Macky Sall mooy waxtaan na boo xam ne day njëriñ askanu Sénégal mais ñu teg ko ci yoon. teg ko ci charte réew mi. teg ko ci ay loi ay règlement yi réew mi. Mhm. mais nag euh, Pape Ngagne. sénégalais gisuma kenn ku ñaawlu kàddu président de la république. au contraire kenn ku ci nekk jàpp nañu ne président dafa wane ne moom wàcc na boppam. Mhm. dafa wax de façon accessible ba nga xam ne. Sénégal ba nekk mi dina yoru laa lu mu nekk ci fond yi fong mi dina mën a capter bu baax a baax message bi nga xam ne ki nga xam ne mooy la père de la nation le président de tous les Sénégalais mhm. jagleel na ko askanu Sénégal merci beaucoup alors